waaw euh, aar bi luy faj la lu jàngkat yi saytu ba nangu ko bu yàgg ñun ñu ngi koy def depuis tamit bu yàgg xëy na ñëpp xamuñu ko mais ñu ngi ci te ñu ngi gis njëriñam surtout ci wàll bi ñuy liggéey ndax aar dafa nekk espace boo xamante ni ki koy def dafay maanaam mel ni fireeku mën a teg ci këyit bi li muy yëg li muy xalaat ni mu koy yëgee ndax xëy na janoog nit di ko wax du yomb janoog nit di ko génne du yomb mais bu tëddee bu toogee tiim fi mu ko war a def mais bu boobaa moom dong la ak këyitam mu teg ci li koy métti li koy neex li muy mébét li mu bëgg ak lépp te ci fànn boobu ki nga xam ne moo koy dimbale muy euh, art thérapeute bi ñun ki ñu nekkal fii muy monsieur Seck ci la leen di accompagner ba ñu mën a gis buntu ci seeni i jafe-jafe Manam donc euh, œuvre bi dina commencer ni yeggé fa nga xamante dina amal njëriñ ki ko doon def ah euh, boole ceeg euh, feex gi koy jox ak neex ci xolam su fekkee ba ni sax ku bëgg aar la donc pour dire que kuko bëgg kuko bëggul amna ci ndirign parce que dafa am ño xamante ils sont artistes nés comme on dit ah dañu judd rek am fibre bobu mel ko bëgg ko mën ko mais am na ña nga xamante fi lañu ko côtoyé et mënatuñu ko bàyyi donc mu nekk pàcc bu am solo ñun ci faj bi ñuy def ndax faj bi naam am na garab mais dafa am yeneen fànn muy rôlu famille bi rôlu expressivité malade bi maanaam mu mën a teg li mu li muy dund mën na ko def ci dessin ci fecc ci ñaw ci togg ñun ñooy xool nu ñu koy tropicaliser maanaam ah ba nga xamante ne dina ko dimbale beneen fànn bi mooy delloo si ko ci société bi parce que ñun suñu xeex loolu la li ñuy faj dañu faral di leen beddi beddi suñuy malade beddi ñu sax ñun ak ñoom mais xeex bi mooy jël suñu place société bi société bi lañ particularité école de Dakar maanaam dañu yàgg di def lépp pour wane ne que feebar la donc naka la def ba mu place am ci société bi ci ci mu alors par ma voix ci sama professeur Mamadou Habib Cham chef de service mooy nekk ñu ngi woote daal ku ñu mën a dimbale ba ñu dundalaat dekkilaat bërëb bii di atelier d'art bi ndax monsieur Seck Alassane mi fi nekk di fi daaneel liggéey bu jéggi dayoo mu ngi liggéey ci euh, moyen yu limité ah maanaam li mu am xaajul bay doy euh, atelier bi màgget na bariwul jumtukaay kon fànn boobu yëpp ku ñu ci dimbale ñu jël ah parce que voilà bërëb bi mi ngi waxal boppam té li fi fiy liggéey li fi génnee ci art war nañu am dal euh, anam yu gëna a euh, rafet yu ñuy nekké diko ko voilà. allez waaw résultat yi ñun ñu ngi koy gis au quotidien comme ni ma ko waxee sànq ci faju maladie ñun dañu koy gis parce que nit dina fi duggé xeyna wax jafé jafém wax feebaram du yomb ndax type de feebar bi mu amé buñu ko yobbo atelier d'art mais ñu gis muy commencer di dessiner té à partir de cette

ñu en place ci société bi ñu ne diw moo dessiné lii mu dundal ko dundal njabootam ak xëy na li ci li ci li ci ci ci au plan financier pour jënd seen i garab